أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك ومجد وشرف على المبعوث رحمة وهداية للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حضرات السادة إخواني أخواتي في الله لله niyaabatan anil xalifati aqulu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi bu ñu musloo ci bakkan ak seytaane yàlla nañ ci yàlla boole musal ñun ñépp ñu ubbee wax ji rek ci turu borom bu tedd bi subhaanahu wa taala te moo di bismillah di santati yàlla bu baax ci daje bi ñu may ñu dajewaat ndax dafa naa dajewoon ngeen ca Ndakaaru waaw ba mbokk yëpp daje woon nañu usra bi daje woon nañu waxtaan ba pare mu dese rek jottali li nga xam ne moom la xalifa bi wax ni mooy am insha allah ndax xew-xew bi ñu jublu kañ lañu tëj jàkke yi booba léegi julli wuñ ci kañ lañu tëj jumaa boobu léegi julli wuñ ci ak ayit yi fi jaar korite tëbaskeet yépp tabaarakallaahu dañ ko aj li ñu jublu lan la ci diini moo salaatu bu gën a dëgg kon waxtaan nañ ci ba pare téere yi bind nañ ci lépp bind nañ ci waaye sëriñ def ni comme que waxtaanoon ngeen nañu yëg ni rek Tiwaawan du gàmm Tiwaawan du gàmm buñ demee ci téere yi bari na bindoon naa ko waaye daf ni ma nañ ko gàttal comme que waxtaanoon ngeen ba pare ca ndakaaru jàpp li ngeen di jàpp mooy Tiwaawan insha allahu du gàmm yàlla ñu yàlla may nag fekke nag ay at ci kanam muy ati yokkute ak susura ci barke Seydina Muhammad boo delloo ci téere yi di nga ci gis ngànt yu bari yoo xam ne kenn ku ci nekk mën nga caa sukkandiku ba du am te dañ ma waxoon sax wax ji na yam foofu boo delloo ci alquran am na lu mu ci wax waaye boo demee ci médecine yi fi toog fas alu in kuntum waaw te feebar la boo xam ne bii bari nañ ñoo xam ne ñu ngi dem di ko yóbbaale te xamuñ fi ñu koy dem kon nag sëriñ bi daal nee na dañu bàyyi insha allahu ba déwén ñu dee gàmm ñu gàmm insha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullah